Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant ci euh, topp gi ngeen di topp seen télévision Equivox TV di leen wax ni yéen a ngi seen biir émission Vox Arena tey nag mbokk yi ñu fas yéene waxtaane waat làmb ñu fas yéene cee ànd ak coach Mame Less te nag mbokk yi li ñuy xamante ne moom la ñu fas yéene càmbar mbokk yi moom mooy mbër yi nga xamante ne bu ñu commencé dégg daali tuuti wala bu ñu commencé siiw tuuti daañu am yenn jafe-jafe yi ak seen i euh, encadrement wala ñu am ko ak seen yi ay coach du ñu citer ay tur mais xam nañ ni mbër yi saa yu siiw ñëwee wala saa yu xaalis ñëwee que soit ñoom wala ñi ñu doon àndal moo xam préparateur mystique la moo xam coach la moo xam xarit démb la daañu am benn coow loo xamante ne moo dox seen diggante lan moo ko waral ci mbër mi la ci coach yi la ci euh, ki nga xamante ne mooy mooy manager yi la ci ki nga xamante ne moom mooy préparateur mystique yi la ci xarit bi la walla alors loolu noonu lañu bëgg a waxtaanee tey kenn koo xamante ne yàgg naa ànd ak mbër yàgg naa préparer mbër yàgg naa gunge mbër muy coach Mame Less waaye mbokk yi balaa ñoo aborder thème bi daañu leen wax ni nañu continuer di respecter mesure d'hygiène yi di leen wax ni nañu continuer di raxas sunu ay loxo fu ñu toll mbokk yi di continuer di respecter euh, couvre-feu bi nga xamante ne léegi président jëlee na ko vingt heures yóbbu ko vingt et une mais aussi mbokk yi nañuy gën a mën a toog suñu ay kër pour daal di euh, xeex contre feebar bi daal di ko gañe di leen di euh, wax ni ñu ngi leen di baaluwaat àq bu baax a baax di leen baal àq bu baax baax ci koor gi di ñaan yàlla may ñuy fekkee ko yu bari waaye balaa koor gi di jeex nga xam te ne ay ay bés ñoo des euh, corona bi daal di fi jógee ñi ci feebar yàlla may leen wér ñi mu dalagul yàlla musal leen ci ba mu yem fi ñi ci génn àdduna yàlla yërëm leen jégal leen maam lees laa àndal pour salaamaaleykum. ay ngi lay siyaar di rafetlu bi di la bëgg bu baax corona bi moom liñ ciy wax dañ ciy wax di ci waxaat rek waaye fii mag mu ne sa magum bopp nga. Mm. précaution yi wax nañ ko ci télé yi wax nañ ko ci rajo yi. day leen takk masque di changer masque yi aussi tout le temps di di jël gel di ko di ko di ko diw seen loxo yi di raxas seen loxo yi ba mu set xam nga su ko defee nag léegi nag ngeen mën a nekk ci condition yu baax ndax feebar bi. Hmm. loo xam ne xamoo ci ngelaw li la xamoo ci kaw la jóge xamoo ci suuf dañuy làmbatu rek balaa caag nga fagaru balaa ngaa lakkule. balaa caag nga fagaru kon kër si tey marché yi nga ma yee ko non man naka jekk ngay ñëwee sama plateau man parisien laa ngay sol ay Marseille di ñëw di ma concurrencer coach. non man naka jekk je suis fier d'être Marseille. mais nga sol ko seen kër coach. man dama ko peintre sama oto peintre ko sama kër peintre ko samay rideau drap may sàngoo drap marseillais caleçon yi may sol caleçon marseillais. waaw <laughs> ah. man de maam lees maam lees Marseille nga xamante ne gañeetul kenn. ngay sol ay Marseille sama plateau. biir prof biir France ba nga ne. aywa Paris donc moo fi indi Ligue des champions. Ligue des champions ne africain yee africain yee liggéey liggéey yi ba gagné ko. te nga daw ñaar fukki at biir Paris doo ko am. Ah, Paris Paris xale bu ndaw la ci ci ci ci bi 40 ans la am. continuer ci loolu. daañu ci jëw. Mhm. Paris dana ma siggil bu soobee yàlla. dana yéex a siggil de. alors mbokk yi naa ñu wax man sax doy na. alors mbokk yi ñuy waxtaanee tey thème bi comme ni ngeen ko déggee muy thème am solo maam. Mhm. mbër yi. Mhm. ak koo fi mënta lim. ci mbër yi. Mm. bari nañu mën nañoo wax pratiquement mbër yëpp. Mm. am nañ fi ay problème mm. yoo xamante ne dox na seen diggante ak seeni ay kilifa c'est-à-dire soit ñu am problème ak seen manager ñu bàyyante wala ñu am coow seen diggante ak seeni entraîneur ñu bàyyante wala ñu xuloo mm-hmm. wala ñu am problème mm-hmm. ak ki nga xamante ne moom mooy euh, préparateur mystique mm-hmm. wala nga dégg seen coow ak ki nga xamante ne moom moo leen magal di seen mentor loolu noonu lan la xaalis bee ñëw wala dañuy dem ba màgg ci làmb gis beneen def euh, beneen leneen lu soupçonné entraîneur wala lan la en général yow loo ci xalaat euh, xam nga làmb comme li ma la wax rek li nekk ci biir làmb ak li ko ëmb dafa bari seex xam nga mbër mën na la ni mu leen lay yar ci benn écrit jàngal la ca ba ba mimara ba alif lam ba asaasi xeer yaa ngi dégg léegi nag nga ne fii sentiratuma sama bopp nga dem ci beneen écrit wala nga dem géej individuel loolu day am léeg si mbër tàggat la ñi nga ñi nga séqal ci benn école sonn ci yow lool sa mbokk jóge fële ne mën a léeg nga yër mbër mu ànd ak manager mhm. manager ba lekk sagar wee ci kam ñu tàqalikoo day am mhm. léeg-léeg aussi nga yër mbër manager bi di sonn ci moom guddeeg bëccëg di daw promoteur promoteur benn di jaayam jóge fële ne léegi man maay manager am léegi luy waxtaan ci man lay jaar mhm. xam nga loolu respecté woo ka nga àndal ba ngay xale ba léegi maanaam làmb coow li ci nekk lépp buñ ko doon dëxëñ tey di fi di ko wax tey dañuy wax rek lu ne bu subaa leen lu bees génn seex parce que xale yi yor nañ kàttan goo xam ne yor doole joo xam ne mais seenu mental day des seenu ngor day des te ñenn ñi dañoo waye di mu ñëw waaw mais course foofu noonu foofu laay waxee mm-hmm. man d'accord yow mm-hmm. boo ma waxee seen i woyadi mhm. wala seen i euh, mental lay des xam lu tax mhm. Mhm. coach mbër yi léegi bokkuñu ak mbër yu démb mbër yu tey bu ñu ànd ak yéen coach yi ngeen ànd liggéey mais bu ñu commencé dégg daal yi dañuy voyager dem États-Unis dem France et cetera mais coach bu ñu gisee Euh, yeneen coach fii nga xamante ne ay professionnel la ñu recensiteur. ñu leen di entraîner coach. bu ñu ñëwee yéen tamit ngeen nekk fii di def yëfu maam ba tey. aussi mm-hmm. est-ce que du yéen yéen ay problème bi. la ñu fii. Mm-hmm. ba jëlee ko fii ba yóbbu ko États-Unis mm-hmm. bu ñu dellu si waat fekkaat fi lu gën a metti. non coach wax ma loolu de. déggoo ma de dama bëgg nga am dégg-dégg. Uh-huh. xam nga voyage bi bu barki démb boo njaaree. ñu ngi doog ko commencé voyage. lépp luñ jëlee États-Unis bu ñëwee fekkaat ko parce que nee naa la ba taay Cheikh voyage yi mën nga am maxaama am maturité yaa ngi dégg saal yi am matériel bu baax mais condition ak énergie ba nga war a am fii nga ko mën a ame Sénégal. dama gis yenn mbër yoo xamante ne dama leen di lima. Hmm. dañu leen préparer Sénégal li tax man coach yi yéen. Mhm. ngeen jaaxal ma seen i cas. Mhm. mooy coach yi yéen est-ce que niveau bi ngeen war a am aussi pour yor. Mhm. xam nga yor xale yomb na. tàggat ko mu am benn niveau bi yomb na. mais maintenir ko ci niveau boobu man moo ma jaaxal est-ce que yéen en tant que coach vous êtes capable tey xale yi nga xamante ne am nañu tey benn cinquante kilos. ngeen leen leen tàggat ba ñu am cent kilo mais bu ñu commencé dugg cent vingt cinq kilos cent trente. cent quarante. gis nañu ay mbër yu ko toll. mais niveau boobu noonu est-ce am ngeen xam-xam bu leen fay téye parce que en général coow li foofu lay ñëw ñu de wuti ji yeneen coach. koo yor de quarante kilos. waaw ba cent kilos. waaw boo lakkul daa gi lakk leneen. ak ah, course maintenir ko au niveau. dama lay wax ne la. Ah. koo commencé cent kilos. di ko sóoloo di ko loo canard di ko contactloo di xool xool bi di xool température euh, système cardiaque bi. Hmm. di ko maintenir pendant des années. Hmm. xam nga. maanaam starité bi mbër yi am léegi moo tax seeni voyage du yomb dégg ma li ngay wax ma ne star yi ah, li ñu nekkee ay star d'accord moo tax seen voyage du yomb waaw mais wax ma mbër ban diplôme la am diplôme wu nekk mbër ci làmb nekk mbër ci làmb di daan ak daanu expérience la coach loolu njàng la dama ne la mën bëre njàng la métier la dama ne ban diplôme la am métier la ah lissance di bëre coach loolu métier la coach waxuma loolu de man waxuma waxuma lu ñu amal waxuma loolu dama ne licence su mbër bu yow bu subaa nga am waaw coach man waxuma loolu mais dama ne la ban diplôme est-ce que am ngeen niveau est-ce que am ngeen niveau bi maintenir mbër mi au niveau parce que mbër boo fi lim mën naa laa limal benn cinq champion yoo xamante ne te ma jox la kaaw Modou Lo Balla Gaye ma jox la kaaw exemple Modou Lo Balla Gaye. maa ngi lay déglu Modou Lo entraîné wu ñu ko fi 4 ans xaw ma 3 ans. Mm-hmm. bi mu demee gàddaay. Mm-hmm. fii lañ ko entraîné sénégalais yee ko doon entraîné di moo mm-hmm. mu ñëw face à Gris mu ñëw face à Eumeu Sène la njëkk ñëw. bi mu jógee ci bombardier ay sénégalais yee ko yor. mu ñëw face à bombardier. doxul. ñu ne déet mu jógee ci bombardier jël Eumeu Sène. mu ñëw yaram bi baaxul ay sénégalais ko yor de. Mm-hmm. mu jógee foofu ñu jox ko Gris mu ñëw. Mm-hmm. te loolu bi mu jógee ci Eumeu Sène balaa moo jël Gris war na def deux walla trois ans. Mm-hmm. dafa dem France. France la dem ci tubaab yi. ñu yor ko trois mois. Balla Gaye métamorphosé wu. Balla Gaye amaat quatre-vingt pour cent. Balla bi ñu xamoon. sénégalais yooyu noonu. loolu laa lay wax mbër bu commencé dégg daal ba dem ñam la fa professionnel yi nekk. est-ce leen xeeb. xam nga yaa ngi jaabale yàlla ak yàlla yi. lu xew. waaw koy bàyyi waaw koy bi nekk fii Sénégal. ak ni ñuy bëggee liggéey fii Sénégal. Mhm. moyens yéen jël noonu yóbbu woon ko ca Europe def ko ca Europe am na fi. nga ni. maa la ko wax du ma la wax bind ko téere. lan moo tax taxawul kon. xam nga lan mooy problème xam nga boo naree jël sa 30 millions dem yóbbu ko France investir ko foofu sa entraîneur bi lay entraîner ñaan nga koo may 1000 francs Sénégal hmm. kooku nan la ci dem di amee maanaam volonté nit ki li muy demee mooy xale bi kat ba muy nekk tout tànk xalaatuta voyage yi maa ko yor de quarante kilos di ko tàggat di ko yokk di ko chargé loo di ko contact loo contact bu intense di ko teg physique bu intense bañ ciy seetaan ni muy déparé ak ni mu yokk ba fi mu toll nii. Hmm. léegi nag matirité day am maturité mënta ñàkk yokk xam-xam aussi mënta ñàkk dem aussi ci parce que ñoom aussi buntu la ci ñoom. Hmm. parce que ku dem tey ba mënatoo bëri ba la neex mën nga faa toog liggéey ñaata mbër ñoo fa nekk ñaata mbër ñooy ñooy ñooy ñooy liggéey ci buuta fuura yi tey dañuy dem ba benn moment boo xam ne mënatuñoo def lu mel noonu mënatuñoo bëri bëri bu intense ndax nee naa la Europe neex na tool mais bu la fa éber fekkee la nga fay def maanaam. poids ba mu lay indil ndomboy baat yi mu lay indil biir bi mu lay jox hiver soxlawul nga fay nekk. Balla laa wax. waaw ma dem dëgg déglu ma li ma la rek xam nga Balla Gaye. non mais coach yow ay waxu non waxuma la loolu laa yéen entraîneurs yi duma la bàyyi nga dagg léegi yow nga jël kaaw ku mel ni Modou Lo. Mm-hmm. mu ñëw faa saa Balla mm-hmm. ñu tëgg combat Balla Gaye. Mm-hmm. entraîneur sénégalais ya ko yor. doomoo foofu xaalis amul. doomoo foofu investissement amul. ñu boole ko juróom-ñaari mbër xaw ma juróom-ñetti mbër xaw ma daal et cetera. Mm-hmm. Mm-hmm. ñóbbu leen Espagne. Mm-hmm. di ko contact doo pendant des mois et des mois. mu ñëw face à Balla oyof. ñu daan ko. mu jógee foofu dem États-Unis dem préparé wu ji états moom kese ànd. tubaab yi jàpp ko def ci moom doole joo xamante ne. mais c'est extraordinaire ci benn deux ou trois mois. mu dellu si si lay dóor ëmmat seen muy daanu keroog gis nañu Modou bi bëreeg Eumeu Sène bokkut ak Modou Lo bi bëreeg Balla Gaye man loolu ma jaaxal ci yéen. coach gént de. lu tax may gént. coach waaw koy bàyyi Cheikh. Cheikh xam nga ndox ngay gént xam nga nit ki buñ ko préparé physiquement. waxuma la moyens yi nga wax xam nga déjà wax nga su yee wax nga yee nga ko ba pare ne ko xam nga déplacé ay nit jëlee leen Sénégal pendant deux mois nga ñëw. combat bi récupération ba ca war ak récupération bi nga war a boo ko def fii Sénégal doo dem kon faute bi yëpp ci mbër bi la. non parce que récupération nekk yoonu mbër nee naa la mënoo nekk ci saalu pële ba 4 heures du matin wala 5 heures du matin yaa ngi dégg doo récupérer ko bu bu bu la mat naa matinal jotee encore nga xëy war a defaat beneen physique bu metti yaa ngi dégg par rapport ak fële bokkuñu nee naa la réalité bokkul yaa ngi jaawale yàlla ak yàlla fële temps bi ngay am pour récupérer temps moo tax mbër yu bari même bu saison bi tëjee day daw foofu pour noppalu parce que sinon fii nit taxaw. c'est que réalité bi am Sénégal bu ko bu ko bu ko bu ko comparé ak réalité bi am Europe yaa ngi dégg ñun dañoo war a gëm suñu bopp on a les moyens on a le les les le matériel qu'il faut pour mbëri entre di am yokkute ñoo ngi ñaan yàlla yoolu mu gën a yokk jàng ko aussi xam ko voyager bien avant ñoom man 2000 laa commencé génn Sénégal ban mbër moo fi commencé génn 2000. bon mbër ah. en tout cas lu ci mënta am. léegi coow li nga xamante ne dana am ci préparateur mystique mbër. Mm-hmm. ak mbër mi mm. nga xamante ne bokk na si ñu ko gën a jege nga mm. jékki-jékki dégg clash am mm. seen diggante mais loolu tamit lan moo fay waral ñaari loolu war ci lay bokk maanaam mbër mi mm-hmm. dina war mbër mi mu nekkal pendant des la mu la xam ci mbër mi ak ruq ya mu xam ruq-ruqaat ya mu xam mu ñëw ca beneen mbër mi diw boole kook moom mu dem yóbbu ko ci même milieu bi ñu nekk benn combat war a tas ci benn jour kooku war la kooku bokkul maanaam aspect làmb mooy li ma la wax dafa tëradi Cheikh làmb ji tuddutul làmb de da ngay làmbatu rek boo làmbatoo boo dajee baax na boo dajul nga xam ne tey di bis mais coach loolu noonu c'est vrai que euh, wor la hmm. mais aussi parfois ñu gis leen ñu ñu demaat ba jubawaat di hmm. àndaat naan xam nga loo gisee waxtaan la te fii senegal bi ñu nekk nii yàlla def na fi loo xam ne loo gisee dañ koy waxtaanee. Hmm. péncoo ko waaye li ngay wax ci ah, ah, préparateur musique musique bi day am ci manager bi léegi. foofu laa doon ñëw. waaw parce que préparer mystique bi léeg-léeg mooy li ma la rek léeg-léeg dina am ruq yoo xam ne fa lay dugal kee. mu jaay la quoi. manager bi aussi léeg-léeg dinañ ko jox mu fenn tuuti am lu mu doon lijjanti far loolu kale yaa ngi dégg coow jub seen biir. Hmm. parce que diggante manager ak mbër foo ko déggee. Hmm. ñu jiita ngaas am ci rek. mooy li ma wax rek. da ngay dem da ngay dem ba benn moment. kala yoroon bu njëkk comme ñun nit ñi ñi nga xam ne yaa ngi koy xalaat naan. dañuy jël nit yóbbu ko de 40 à 100 kilos léegi dégg mu dem tem bitim réew yaa ngi dégg li li ko li ko yóbbu ba 100 kilos war na ko yóbbu ba 130 wala ba 140 kilos léegi nag loolu noonu bu amee manager bi bu ca foree dara yaa ngi dégg jël ko di fatt tur doon xaar leneen ñëw loolu mun na koo duwlaloo mbër mi ba duñ jubóoti ñu féex ko wala mbër mi dem ba benn moment manager yor ko yor ko yor ko ba cent millions di commencé jege si mu indi beneen manager teg. dama daan dégg sama papa Gaston naan Euh, làmb daf nattu la nattu moo la ciy dugal mm. nattu rek moo la ciy dugal mais làmb dafa metti mm. alors coach bu ni melee bu demee noonu mm. nga xamante ne yor nga mbër bi dara dul dara nga ànd moom bi ko entraîner di sonn ci moom parfois ku dal la yow yaa ko mag ah. parfois nga am ci ay coono parfois ah. nga laal euh, xam nga ni yorul mais si boo demee benn moment mbër mi war la ginnaaw dem xool ci keneen ban sa ban ban noonu lañ ko yëgee xam nga léeg-léeg nga sadoog ku ubbi rek ci dem sa ngaam bi nga naan une semaine fondé sa kër. nga ni ko wax kenn duy caaxaan de. nga ni Cheikh li ma la wax duy caaxaan. parfois léeg ngay sadoog mbër réglé di sadoog réglé ci déplacement bi ku ubbi rek ci dal la ci manton wala mu dal la ci ngaam nga am enflement waxam ne semaine yu lëmm fondé ngay naan. ndeysaan mooy amour bi ñu ci dugal. mooy bëgg-bëgg bi ci dugal. Hmm. mooy bëgg ñoom ñu am dam am réussite. Hmm. man làmb taxumaa jóg. mais bëgg ak amul bu ma ci am la man samay nee la li may def man dépassé na am bu ma ci toogoon lu ma bëgg mën naa ko jam te maa ci sant yàlla donc dañ leen a am man dèjà déggul ma la chaque fois nee naa dama koy tiitaroo di ko béggoo géejawaay lay jóge di antenne waa que am na nag ci mbëri mbëri ci am kóllëre torop hmm. lool ci yëg-yëg ci di la nemmeeku ci di xool ci kër si lu mu ne loolu am na bu ma ko waxu rek dama du waxuma dëgg te man ku ma xam tamit xam na li may waxee li may yox man du lu may dencal kenn. dëgg la am na. Mhm. ñoo xam ne dinañ la nemmeeku danañ xool ci loo ne danañ am na mbër yoo xam duñ la woo. te jaar nga ak ñoom fu ne. duñ la woo duñ xam ci loo ne duñ xam looy dund. écurie yi. Mhm. da gis mbër moo xam xamante ne dafay nekk ci biir écurie. Mhm. mu bàyyi écurie dem di contacter beneen mbër. est-ce que écurie amati na amati na sax d'ailleurs. noo valeur bu mu war a am amatu ko responsabilité nag. nit ki yaa koy may sa bopp man nangu naa nga am copain Cheikh Omar nekk sama gaay mhm. Cheikh Omar am na komba mhm. sama écrit dinaa fa def ñetti fan may ko ñaari fan bu dee nit ko régulier laay wax de waxuma nit ko dof bu bëri doole dem nii tëñëx tëñëx non xam nga parce que aussi dafa am loo xam ne respect la ci ci nit ki mhm. respect la ci ñi nga nekkal respect la ci ñi nga war a jox cër mais partenariat bi ñuy doxal nii kiy jóge écrit bee kiy jóge écrit bële man dama lay wax carrément yow mi mbër mi sama waa écrit kat bëgguma ëllëg ñi indi ay sanction wala ñi indi détail donc man da may bàyyi ma am ñetti fan sama écrit yi may la ñaari fan ñëw nag waxtaanee ko wax écrit duñ ko bañ xam nga lu ne rek waxtaan la peccoo la mais nag ay 4 mois wala 5 mois wala 6 mois. duñ la gis ci écrit duñ la gis duñ la dégg. sa combat sax ci mbooy gi lañ koy déggee yaa ngi dégg kooku moom man mii maa ko wax man maam lees wutal say mbokk ñu yóbbu. nee naa la am na mbëri yu gore yoo xam ne tey boo la doon fii Sénégal man am na mbër yoo xam bokkuñu écrit wóor na yàlla nemmeeku bi may nemmeeku man mënuma wax sax lan moo xew. Mm-hmm. am na mbër yoo xam ne fi mu toll nii daanaka liñ may gis si làmb day bëgg sax faa may waxtaan ak ñoom mais ndax léegi yi ngay nekk. Mm-hmm. ak écrit bi nga yor. mais dañuy dégg sa waxtaan naan la grand yow ni ngay waxtaan ñoo ngi lay dégg ñoo ngi lay may xel ñoo solo parce que àdduna amul solo am amul yenn problème yoo xam ne wala yenn détails yoo xam ne nit dina ko xëcc ci boobu wala ngay réy réy wala ngay ngand ngand wala ngay dox si tali di funkil bopp di dox ne ko su bu leen neexee ko am doole funki ah man maa ngi nii damay funki su may dox élage sañu ko parce que maa ko ëpp doole lamb ji da dox ci pegg tali yi funki bu lëgatee ñu la épircule tipp nga wàcc da nga toog deux semaines doo génn sa kër mais loolu sport bee di mel hmm. alors mbokk yi mu nekk loo xamante ne ñu ngi xaar seen i commentaires yéen tamit ngeen daal di euh, wax ñu aussi seen yaakaar aussi yokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteuru lamb yi euh, di leen ci gërëm bu baax a baax baax ci bi di leen ci sant maam lees lañ ci àndaloon maam looy tàggatoo. di gërëm rek. di encourager aussi xale yu ndaw yi mbëri ndaw yi. Hmm. di leen wax ñu gën a yokk jom. gën a ñeme na gën a ñeme teg seen bopp coono. Hmm. ndax làmb ji tôt ou seen loxo lay bujjee. Hmm. di nuyu ñëpp di nuyu kullukum ak lu làmb yëpp maa ngi la nuyu di nuyu càndum ndax tey bu may ñëw daanaka lu ci bari moo ma xaw a jàppale ba ma libéré wu. ba mën a ñëw tey maa ngi koy sant càndum di nuyu sama grand frère góor su mooy frère nekk Italie Malick njaga ak Ndiaye góor yàlla laa koy wax moom depuis États-Unis Oklahoma City dëgg dëgg taxawu na ma seetaanu ma maa ngi koy sant di ko gërëm. mu ngi koy sant di ko gërëm yeneen mbokk yi ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ni euh, daañu dellu si waat ci beneen numéro euh, Vox Arena coach Mame Less lañ ci àndaloon toujours égal lui-même muy wax xam ngeen ni expérience lay waxee mais dafa dëggu ci li muy wax. yéen ñu ko gën a xam di leen ci sant rek di leen gërëm di leen jox dig daje très bientôt ci beneen numéro Vox Arena. Peace. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.